del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. léegi xam nga après Daba Thiam ndeysaan ma woo ko ko Papa Thione Daba Thiam moo soxla seen numéro mu ne ma yee Daba man ko man kooku animu ma ne ko mu ngi fi mu ne jox ko jox ko ma jox ko ndeysaan tuuti après ay deux jours trois jours. xaw ma ay quatre jours daal wala une semaine su ma juumu moo woo ma ma maa ngi lay woo ci ba tey jotuma la ma ne ko dëgg la kay papa Thione man damay guddee tëdd ah del teel a yeewu nag xam nga affaire yooyu ma ne ko man ay 6 heures du matin laay tëdd mu ma ah, man de dëgg yàlla Daba Thiam defal na ma teraanga ma ne ko ah papa Thione yaa ko moom yow da baax ma na ma sama numéro bi am na orange mu ne ma ne ko papa Thione pour lan la woon mu ne dama lay laaj rek ko ndeysaan mu yónnee ba xaalis su bari ndeysaan loolu laa mujjee wax ak moom waaw daba càmm bërki démb lay daf feebaroon moom bërki démb lay semaine passée lay soog a yëg ne papa coon làqu na dafa jooy jooy dafa maa woo jooy ni ma lii du dëgg ma ne ko dëgg la de ah may wax sama freer sama xarit nga xam ni sama bis bi tamit jàpp na ci muy Waly Seck yàlla na ko yàlla may xolu muñ mama jaaga yàlla na la yàlla xolu may xolu muñ njaboot gi yëpp yàlla may leen xolu muñ ndax Waly yow yàlla bu la fayee sa xol rek doo sonn ndax yow nit ku baax nga ku bëgg ñëpp nga xeeboo kenn barki sëñ Fallou waaw. alors euh, jege nga Waly trop yow Waly ci yan projet la ne. ah wax dëgg yàlla xaw ma Waly ci lan projet nit da wax loo xam. donc euh, lu ñu bëgg xam waaw li ñu bëgg a xam aussi. xam nga lan laa lan laa bokkee ci waali programme day jot njaga ak xolom bu rafet. waali ni ko wool ndéygee mu woo ma téléphone ma dem waali di séddale dara njaga woo ma ni ma waali boole na ma ak yow nee na nga ñëw jëlli <laughs> man waali loolu may defal man. ok njaga woo ma barke Cheikhul Khadim mais lépp nag soxna la waaw lépp rek soxna ay dara la. parce que nag bu loog alamee bu lekk lekkee alom na ko gërëmee coy loolu olof yi di wax lépp rek soxna la chaque un grand homme y a une grande dame derrière lui jabaram mooy dooleem parce que sëñ fal à part yaayam jabaram mooy dooleem ndax jigéen booy sutura booy soutenir sa jëkkër suturaal ko non lu ngeen bëgg yàlla mën na leen ci dimbali man Wally loolu la may defal man waaw. donc boo déggee ma laaj la projet Wally yi c'est-à-dire am na si ñoo xam léegi man la ma tax doo ko wax ndey. ma koy wax. projet Wally fii. projet Wally demal ci Wally mu wax la ko yow. waaye bu ma jógee si naa dem si moom. waaw demal ci moom wax. kon nag Ndeye nee na sa projet yi du ko wax fenn. lu tax ma koy wax. bañ a siiwal Wally. pour lan ma koy siiwal. ñoom war a siiwal nag ma koy génneel ko. ñaanal leen ko rek yalla may ko rek. yéen bi oyof ci kawam. <laughs> moo ngi noonu Ndeye Gueye la ba tey pareeguñu ci moom parce que euh, ki pareeguñu am nañ yeneen ñaari ngan di question yoo xamante ne war naa ñëw ndey jàmm la benn bi mooy préparation combat bi. Mhm. voilà boobu la ñuy kaa ñu dal ci boobu sax buñ jógee ci boobu après ñu doog ñu doog jëm ci beneen bi mais lépp ay tàllal lay doon comprendre nga comme ni nga ko waxee sànq papa mu ngi préparer combat ñu bëgg xam exactement. papa buy préparer combat naka yow ngay ànd ak moom ci préparation yi parce que tamit jabaru mbër dafa metti de. waaw metti na mais lépp sant yàlla la rek lépp sant yàlla la ndax yàlla bu ko neexoon tey mën na maa may beneen jëkkër bu dul mbër du man may choisir mais yàlla mooy xool li ko neex mu ne ñaar ñi ñooy ànd du dëgg te man lu yàlla suñu borom dogal rek dama koy nangu parce que dama di jaamu yàlla bu xeebu rek suma jëkkër nag buy préparer combat man defe naa ne war naa ko ci mën a jàppale fu ma xam dinaa fa dugg sama nit ku baax ku xam dinaa fa dem waaw jàppale bi nag ci man lay commencé ba pare ñi ci biti soog a jàppale ba pare estafam soog a dooleel man jigéen laa rek li jigéen ñi def rek li jigéen di def rek man loolu laa war a def comprendre nga li ci def ñu bàyyi ko li góor ñi def ñu bàyyi ko góor ñi waaw. parce que damay gis parfois mbër am combat ñu naan am na yenn gàllaaj yoo xam ne jigéen du ko laal am na yenn affaire yoo xam ne jigéen ñi am na. man man néeg bi papa def di def ay kii man du ma fa jege côté boobu duma fa jege sax kër ga kenn du fa jege kenn du fa jege man du fa jege du ma fa geesu sax gees sax du ko fa def. mel na nga cee boole ragal. non dama laale parce que affaire mbër moo xaw moo sensible quoi ah te boo dee nit il faut nga maytu yu bari daal comprendre nga te te te te dafa làmb dafa fiir. donc loo xamante ne bu la leeree ni lii boo ko defee wala day yàqal sa day yàqal sa jëkkër rek war nga ko mën a moytu loo ko mën a moytoo man de maa ngi jéem te ci loolu laa nekk nii waaw. combat bi kañ taxaw. taxaw na bu yàgg combat bi léegi mu am un an xanaa xaw ma deux ans. kan moo ko tëgg. Fallou Ndiaye moo ko tëgg. papa def na première rencontre ak adversaire am. est-ce que du est-ce que du bientôt rek incha allah yàggatul de après koor koor gi rek incha allah may ñaan sénégalais yëpp nañ ko ñaanal mu am ndam maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal papa mu am ndam. ndax nag mu am ndam mooy sama fierté bu yàlla defee safaan woo man damay gëm yàlla nag mais du ma nekk cent pour cent mais damay ñaan rek képp kuy képp ku rek xam ne rek yaa ngi wax baatu laa ilaha illallah rek nag ma ñaanal sama borom kër gi mu am ndam ci barke Seydina Mohamed ndax nag ku bëgg li muy def la ku ko gëm la it te ku ci ñeme ñàkk alalam la it waaw mais nag lépp ci loxo yàlla rek la dépendre waaw maa ngi ñaan nag képp kuy ñaan rek maa ngi ñaan nga ñaana ma sépp kuy sénégalais ak foo mën a nekk rek nga ñaana ma sama boroom kër mu am ndam ci barki Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla na ko def xam nag lu ñuy wax milieu bu si nekk ak profession bu ci nekk liggéey bu ci nekk daa am lu koy tilimal. Euh, sànq bi ñuy débuté nee nga doo wax si waxu jàmbur c'est vrai pour wax si waxu jàmbur bu la neexee mais juste dama lay laaj rek naka nga dundee kaaw Ndeye Ndiaye Banaya bi naka nga ko dundee personnellement naka la def sa xol. waaw kooku sama rakk la sama xarit la sama doom la ndax papaam élage Hadj Ndioumoukunda tey defe naa ni ñu ñu tettee ci aar bi ci la bokk ñun donc nattu la nangu nañu nattu la bu ko yàqal carrière te tey la succès bi gën a yéeg ak Cheikhul Khadim tey la succès bi gën a yéeg ma koy ñaaxaat rek di ko wax na xool ni muy defee na xool fi muy teg tànkam. parce que keroog dañoo daje benn programme may génn ma nekk sama oto di dem gis ko muy ñëw boo gisee cortège bi ko topp ak kat-kat bi ko indi xale yi di yuuxu Ndeye Ndiaye sama xol bi fa sedd guy ma xam ni yàlla dina def dara rek ndax dara barke Cheikhul Khadim billaahi ma ko dolli conseil na gën a jàpp rek dina baax yàlla baax. donc yow ni nga gisee ni nga gisee situation bi ak ñi ko ñeneen ñi gisee bokkul ñenn ñi dañu gis ne bon la ñenn dañu gis ne erreur la comme yow ni nga ko gisee alors nan ngay nan ngay nan lan ngay wax ñi nga xam ne dañ naan bon la. gis nga fii kenn bonul yàlla rek moo xam ki bon te buñ doon uññi sutura yëpp du baax yàlla nañ yàlla dolli sutura daal waaw. <laughs> foofu daal nga ci yem. ay ci mu noonu donc le cas de Sonko Adji tamit di waa rek déglu rek waa ñu. prévenir naa la Sonko Adji Sarr sama yoon newu ci. dëgg la. kay waaw may ma. wax ci Sonko du ma wax ci Adji Sarr. dëgg la yoon ci bàyyi ma toog gàpp sama njàmbur. waaw d' pour wax ci Sonko. Adji Sarr doom wax sama palace bi nu may def ba développé nga may wax Sonko ak Adji waa kaay ndey. foofu <laughs> toj waa kaay. <laughs> sama gars la nag. bàyyi ma gars yi noo nii nga may def bu ñuy tourné ba ma waxuma de koo dugal nga bëgg. wuy ma waxloowu ma la ci lenn luñ la yóbboo te xam nga ne ku la yóbbu yóbbaale ma. damaa waxul Sonko dama ko dama ko respecté. dama ko respecté. ah Adji jigéen la dama ko respecté du ma wax ci seeni wax. waa léegi man waxuma ci. looy conseil waa ndey nii nga may def ñëw fi war waxtaan ak yow nga bañ waa d'accord waa d'accord waa xewi na léegi li ma bëgg ñu wax lan la <laughs> yaay reetaaloo sama caméraman bi waa d'accord loolu xew xewi na léegi li ma bëgg ñu wax mooy xam nga lu fi xew fi ñu toll nii luy bës nit ñi nu ñu fexee ba am yëre korité nu ñu fexe ba am ginaar yi seer. dañ ciy ñëw dañuy tëjee. parce que xam nga lan moo tax. parce que xam na lan moo tax. xam nga lan tax nag loolu la ñuy tëjee parce que sa place bi yaa ngi gis. ku fi ñëw dina sañse korité. gi na ñëw ma ñawal ko grand bu amul fenn. da nga da nga am ak madame Faye Sall link. ndayu madame Mbengue madame Faye gën ci àdduna bi. jigéen ñi fi gën ci la bokk moom ak madame Diaw mama jabaru maam booy jigéen ñi gën Sénégal ci lañ bokk ak madame Ilimane Lam ak Maguette Coy ak Amina sama doom jooju la défense ak aram ñaa ñàkk ñooñu ñoo gën ci jigéenu Sénégal yi su may su may lim bopp barki sëñ Touba. ak sama waaje Kolle fay ndax Kolle Faye kooku Siré Diallo la ñuy wooye yaayam général waali fay la ñuy wooye baayam jigéen ju mën góor sama séeréer boobu yow ñaq tedd rek ngay dundee Kolle yow man ak yow showbiz boolewuñu sama waa ji kenn du yow barke borom tubaa ak sama waaja Anna Sidibé Anna Bass borom Big House borom pari la France sama rakk kenn du yow Anna barki sëñ tuba ak lanaat yow. ok déggoo li ma wax li ma bëgg a wax yëpp nga ko fi mu nekk nii <laughs> leen rek laa bëgg nga wax ma opposition bi nga xamante ne nii ñu ngi koy euh, opposition opposition bi nga xam ne moo am. ci diggante waaw. mënoo moo tax nag ma bëgg la leeral lépp nga xam ne dama lay teg ci raay rek. voilà gis nañ ne opposition yi oppo kii bi euh, politiciens yi tey jii képp koo xam ne gis nga ni mu ngi sa kaw rek yaa ngi koy fexeel. nan nga leen lan ngay mën a wax ci loolu loo xamante ne nii comme par exemple tey jii Ndeye ñu bokk milieu bi ngay fecc may fecc nga jiitu ma ci. Mm. nga gis ne nga nga boo defee nii seen duudu mais mu ngi def fa sama ginnaaw te sama kaw la jëm si nga fexeel ma noonu lañ koy doxalee ñoom donc loolu lan nga ci mën a wax ba nga xamante ne nii du yee na Sénégal parce que tamit cooli fi mujjee am noonu yëpp loolu moo ko waral gis na nit a ngi ñëw sama ginnaaw nga bokkoo nga bokkoo nga bokkoo kii. wax dëgg yàlla xaw ma nit a ñëw sama ginnaaw nit a ngi ñëw sama kanam mais li fi amoon yàlla na fi géej parce que loolu baaxul ci réew yàlla na fi géej seytaane la woon rek bu dugg ci réew mi rek te yàlla na ko suñu borom fànqal ndax sama waa suñu waa ji yàlla def na mu sëñ Mountakha mun Muntaxa boroom ay gu neex ki boroom ree gu neex gi sëñ taxa boroom xéewal yu bari sëñ Muntaxa mi bëgg jaam ñi sëñ Muntaxa mi bëgg murit yi bëgg laayeen yi bëgg tiijaan yi bëgg ñaseen yi ah sëñ Muntaxa ñëpp la bëgg sëñ Muntaxa mi ci reegu neex gi ayam bi daa neex sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér Mbàkke Balla yàlla nga fi yàgg lool te wér Mbàkke Balla moom daa sedd lépp mu sedd waaw